سرين بي شيخنا شيخ أبو سيد مختار كنت ابن الشيخ بن محمد كنت ابن الشيخ سيد مختار كنت ابن الشيخ أبو محمد كنت ابن الشيخ بن عامة كنت خليفة العام لطريقة القادرية المختارية البكائية خليفة الشيخ أبينا عمل كنتيو ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ni doom di nuyoo waajuram ni taalibe di ziyaara sëriñam waaye di la namm ni sàkkukatu xam-xam di nammee boroom xam-xam sëriñ bi ñu ngi lay wax ni liggéey bi nga ñu santoon comité scientifique bi te jaarale ko ci ki yore sa kàddu di porte parole muy Cheikh Khalifa Kunta ak imaamu ratib Cheikh Sidi Omar Kunta ak sunu waajur borom dëkk bi di Sëñ Xamm ak njaboot gi ko seqal yépp liggéey bi dooree nañ ko ci alquran ndax loolu nga ñu santoon limu alquran yi nga xamante ne bii rot na fi mooy ñaari téeméeri kaamil ak fanweeri kaamil ak ñeenti kaamil yàlla wërsëgale na njaboot gi it ñeenti junniy suratu yaasin ak juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar am nañu ci hëyla la muy fidaaw ahlu kunti muy baatu laa ilaha illa allah am nañ ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer am nañ ci basmala it juróom-ñaar fukki junni am nañu ci salaatu ala nabi fukki junni ak ñeent ak juróom ñetti téeméer am nañu ci istighfar muy astaghfirullah al azim fukki junni ak ñeent ak ñetti téeméer ñu boole ko lépp nag def ko adiyatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaan sunu borom na nga ñu ko sante yool bi sunu borom bi jox ko cheikh bu mohammed kunta ak i waajuram ak mboolemu julit yu nekk barzaq waaye barke ba ak tiyaaba ja yàlla sotti ko ci réew mi ndax jàmm nga ñaan jàmm nga santaane jàmm nga digle jàmm ngay dox ndax jàmm jooju yàlla sotti ko ci réew mi sotti ko ci réew julli sotti ko ci àdduna bi yëpp ndax àdduna bi yëpp a soxla jàmm tey sëriñ bi njaboot gi nga woon muy sa dëkku maam ba di ndàng sanc buuna ndeer naar Guyet xaali Cherif xaali Buna Cherif ñii ñëpp teew nañu waaye mboolem réew mi territoire Sénégal fépp fi sa cheikh nekk ab taalibe teew na ci jotaay teew na ci bis def na it ndimbalam ci kaamil yi waa dëkk bi tamit ak tund wi ñu wër ñoom ñëpp ñëw nañu tey barkeelu ci kaamil bi ñu ngi fii ci jataay bi ànd ko ak waa dëkk bi waye serigne bi nga ñaanal say city bop ñi nga xamanté ñom ñoo ni nga xamante nom ñoo ni noy jaayante ak cheikh bu mohammed Kunta Cheikhina ak kuréel yi ñu ko àndal fi ci dëkk bi taxawu nañu bis bi ànd ko ak sa porte parole khalif ak imam ba ma sha allah am nañu yaakar ni rafetna yal na ko yàlla rafetal serigne bi ñu ngi lay xamali sa dom mi nga xamante ni bii moom nga joxoñ xalifa mu teg ko ci kanamu njaboot gi muy coordonnateur alaaji matal na liggéeyam rafetal na ko waaye sa doom yi fii nekk di say taaw bàyyi si di ak i rakkam yëpp ñoom itamit ànd nañu ci liggéey bi fakkastal ñu tiital ñu jaxasewuñu suñu xel kon nga ñaana leen yàlla waaye sëriñ bi ñi nga bokkal réew mi bokk ak ñoom njaboot gi yàlla boole leen dénk njabootam gi ci kaw suuf muy wàllu administration bi ñoom it sous préfet préfet teew na fi ànd ak sous préfet ak forte délégation dañu waxoon ni du def cérémonie officielle looloo tax mbir mi toll nii kilifa yu mag ya ca kaw ñaanuñu leen ñu ñëw dañu ne préfet na ñëw rek ànd ak ñi mu bokkal département bi ndax dañ ko bëgg a yemal ndax réew mi fi mu toll ak li réew mi la waaye sëriñ bi sa doom it teew na ci jataay bi sëriñ Yunus Mbàkke di doomu sëñ Murtaa mu ngi ci jataay bi sëriñ bi sa doom sa xarit oustaz Jiddu Ahmed bàyyi ko Mauritanie ñëwoon fi ci jamono yële paase doon liggéey ak ñun comité scientifique bi ci gëstu ci wàllu Kunta ak Cheikh bu Mouhamed Kunta ñoo na fi ñaari yoon liggéey nañu ak moom dem na Mauritanie mottali na liggéey ba defar na téere bi andi na ko mu ngi nii bii ci guddi la fi yegg si matin la yegg si ci suba laa gisee moom mu présenté téere bi téere bee nekk nii ci Kunta ak Cheikh bu Mouhamed rek la def gëstoom mu ngi nii toog dend ak yow nga ñaanal ko yàlla liggéey bu rëy bii nga xam ne liggéey na ko yàlla sunu borom bi defal ko ci jàmme àdduna ak bu àllaaxira kàddu yi waroon na ëpp li waaye dañ koo tënk fii ndax waxtu wi soreetul te da ngeen ñoo jàngaloon ni lépp lu ñu nekk ba julli jot nañ ko bàyyi dem julli ji ndax lu ñu mën a ne ba dee ñoo dañ ko fay bàyyi dem dee kon sëriñ bi lii moo doon tënk su jubee tegu ci ni nga ko bëggee ak ni ko njaboot gi liggéeyee seen ñaan la ak mbaaxu bu yàlla loo ca yàqu doyo di doomu aadama la ñu ngi koy jéggul yàlla di la ko jéggulu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mohamed kaddu yi mat na lin la fi joxe woon lin la fi tege woon matal nga ko léegi nag ñu jox préfet mi fi nekkal gouvernement bi mu joxe ay kàddoom ñu teewlu ko bismillah préfet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي يكتي أي كادو yu tedd di kàddu yu nuyoo di kàddu yu ziyaare di kàddu yu ndokkeel kàddu googu nag maa ngi ko yëkkati ci sama tur ak délégation bi nga xamante ne bii ànd naa ak ñoom muy délégation bu takku dinaa ci lim rekk ñennat ci ñoom bokk na ci sama adjoint au préfet bokk na tamit le sous-préfet de Pambal ak adjoint bokk na tamit le maire de la commune de Cheriflo, Lo waaye tamit chef de service yu bari yoo xam ne ànd ak man lu ci mel le commandant de la brigade de gendarmerie le coordinateur des ASP waaye tamit ki fi chef d'agence de la Sénélec ak Mbolo mu takku macha allah sëriñ bi ñu ñëwoon indi tiant Nuyo Akziaru, son excellence monsieur le président de la république Macky le premier ministre Amadou Ba ak gouvernement waye tamit jaar monsieur le ministre de l'intérieur jaar monsieur le gouverneur de la région de Thiès ñu ñew seigne Sidi Mokhtar ànd ci nag ak cawarte ànd ci ak mbégte ndax xam nañ ne bis bi ku ci yàlla boole sant rekk moo la war kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la ndokkeel ci sa bisub maam bu tedd bii waaye itam di ziyaare mboolem ëhlu kunti ak fu ñu mën nekk ak fu ñu mën di bàyyikoo ci biir Sénégal wala ci bitim réew mënuñu lim dëkk yëpp ndax waxtu dafa xat waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di bàyyi xel di rafetlu tam seen taxawaay waaye tam di nuyu njaboot gi ñu fi fekk yëpp ak kilifa yi nga xam ne tamit fekk nañ leen fi ñoom ñëpp ñu bàyyi ko ci gox yi sori ñëw ngir fekke bis bu tedd bi fàttewuma le comité d'organisation waaye tamit maa ngi beral nuyoo tam sunu mbokk soxna yi maa ngi leen di seet ndale ñu ngi leen di ziar ñoom tamit waaye itam surtout di nuyu la jeunesse de Ndiassane la la jeunesse kuntiyu gis nañ seen taxawaay rafet na taaru na dal na xel macha allah sëriñ bi wax ji du gudd ndax euh, timis mi ngi jot dañoo ñëwoon tey ànd ak yow sa bisu maam bi muy guddi gi ñu jagleel euh, cheikh bu bu cheikh bu Mohamed Kunta nga xam ne yaakaar naa ne dëkk bi bu ñuy wax njaasaan cheikh boobu Mahamad Kunta moo tax kon nag bu ñu ko jagleelee bés bu toll nii ah yaakaar naa ne kuñ ci woo dañ laa bëgg a dimbale yàlla def nag tey indi la ba tey jii ngay xalif général kul xaadar loolu dañ ci am mbégte dañuy sawar ñëw ànd ak yow bis bi nga xamante ne bii eh, jàpp gi nga jàpp président de la république kenn nattabliwu ko jàpp gi jàpp aussi mboolem gouvernement bi kenn jàpp kenn maa natable ko ak lañ leen di jàppalee waaye tam ñun ñi nekk fi ay ndawam nga def ñu doom def ñu lépp loo xamante ne bii da nga koy ñaanal sa waa sa sa waa kër bopp nga yéene ñu ko loolu aussi kon amuñu sa fay. di wax rek na ñu ngi feddali euh, cofeelu président de la république ak bàyyi gum bàyyi xel ëhlu kunti yu rawatina fii ci Njaasaan ak yéene yu am solo yoo xamante ne bii am na ko fii ci dëkk bi. te am na loo xam ne bii gis ngeen ko am na loo xam ne incha allah dinañ ci dem dinañ ci àgg nagan si démb dañu doon def pose premier pierre le centre de santé bi nga xamante ni président de defal na ko Njaasaan nga xam ne daanaka àgg na ci de milliards kon loolu rek lenn la ci ak yi weesu ak yi ñëwagul kon loolu day firndeel ne rek ku bàyyi xel këru diine la rawatina ëtt bii ñu toog nii muy ëttu mbaam eh, Cheikh bu Mouhamed Kunta kon loolu nag eh, day baax ñu fàttali ko di sàkku rek ñaan eh, sëriñ bi yaa ngi koy def naam waaye nag bu ñëwee fii dinañu fettliwaat sàkku gu ñuy sàkku ñaan te xam ne fii yaakaar nañ ak ñaan ndax barabu ñaan la barabu ñaan gu nangu la kon nag bu ñëwee fii réew mi toll fi mu toll ni ah dinañ sàkkuwaat sëriñ bi nga dolli ñaan yi ñaanal président de la république yàlla may ko dolli ko jàmm dolli ko sago ba mu àggale ci jàmm yàlla na yàlla seral kanamam Yana na yàlla seral ginnaawam yal na yàlla seral Sénégal yàlla sotti fi waamewu jam, ba xol yi ànd déggoo ba ñu mën jëm ci développement bi nga bi kenn mënu ko am te du fekk da am jam ba noppi te dimuktar, eh, Kunta Sidi Muxtaar ñu la ci di la ci tàllal sunu loxo bu bu baax a baax jàmm daal la bëgg ci réew mi ak développement bi nga xamante bi tax kenn ku nekk am loola doy loo xam ne dañ ci mën a jaamu sa borom ndax jaamu yàlla rek moo ñu indi ci kaw suuf du leneen kon sëriñ bi ah ñu ngi jéggulu kàddu yi xëy na xaw naa gudd waaye li ñu yéene ak ki ñu yónni moo tool noonu rek waaye xam nañ ne waxtu wi sax xat na ñu ngi sant ñëpp di gërëm commité d'organisation bi waaye itam di gërëm bu baax a baax sa doom jii dend ak yow mooy le porte-parole seexal Al Khalifa Kunta di wa di rafetlu taxawaayam di wax ne lépp loo ko sant digganteem ak administration bi ak ñu dey liñ sunu wàll rafetlu nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ci également euh, euh, pasteefam ak it yéene ju mu am ci euh, kër Cheikh Bou Mouhamed Kounta ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko ñaanal moo ko ñëpp ñu mu àndal ci comité d'organisation bi El Hadj Mam Bou ak ñoom ñëpp ñu ngi sant di gërëm di rafetlu taxawaay foofu la ñu bëgg a yemale kàddu yi rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.